moo fàttali d'abord que suñ dialogue boobu dialogue du peuple F24 def ko waroon lancer le 31 mai mooy jour bi ñu waree lancer le dialogue bi président di di di di def nii mhm. mu am injustice bu rëy bu ci xew bu rëy mooy bëgg jàmm moo tax ñu dem parcelle préfet bi teel ñoo du ñun sax seeni mbokki journaliste la woo ne leen dialogue yi gars yi dama koy tere ñoom ñu woo ma ne ma préfet nee na day tere seen jaloo bi ma ne waa ba mu notifié ñu ko ñu bàyyi ko dem ci beneen salle ñu indi fa coow ñu bàyyi ko dem kër Malick Gakou mhm. kër biir kër lieu privé gendarmerie fekk ñu fa génnee ñu jiital borom kër gi andi ko ba ci salle bi ne nañ génn salle bi sans papier ni rien du mhm. tout loolu du réewi droit parce que droit réewi droit li tax mu baax mooy décision buñ jël te neexu la war nga mën a jël liñ fi ñu ko teg dem ci juge bi ne ko lii d'accordu ma ci. Mm-hmm. mu mën a jël décision pour suba. defuñ ko ñu for ci wéyu béy ne président de la république dafa joxe ndigal jour boobu ne territoire yi Dakar bi bu fi benn réunion am bu doo réunion bi may tenir man. Ah mu wone oui loolu lañ ñu rapporté mu wone un peu état d'esprit bi président de la république nekk léegi te loolu du démocratie ma fàttali ne président Wade da doon bañ gaa yi ne d'accorduñ dañuy def assise Mm. dañoo dem jël méridien président mm. mënoon na koo gantal waaye da leen bàyyi ñu def ko ñuy dem ngor jaaraama lañ la M23 doon defee seen réunion yëpp mu bàyyi leen ñu def seen yëf ba mu pare moom mu nekk ci lim nekk parce que buntu assemblée aussi dafa bàyyi woon gaay dem fa buntu assemblée mu bàyyi gars yi le 23 juin ba le 23 juin nekk tey jour bu ñuy célébrer loolu lépp ouverture démocratique moom moo koy may maintenant lan la dialogue gi du peuple parce que ñun peuple bi la ñuy jox la parole boo xoolee ñoom ni ñuy doxalee ak li ñu wax nii ça veut dire que ñoom logique bi ñu nekkoon jóguñ ci. Mhm. mooy logique yi utiliser état bi utiliser institution yi di ci génnee ay adversaires politique ñu ngi koy utiliser tey pour dugalaat adversaires yoo xam ne moom lañ utiliser woon génnee leen ñoom lañ bëgg a dugalaat ci les mêmes moyens mais en même temps ñu ngi bëgg a génnee ñeneen. ñun dañ yàgg wax président Macky Sall ne ko état bi bàyyil moyen état bi ngay utiliser di xeex say opposants parce que quelque part même loolu def leen di dooleel ci logique boobu ñoom ci lañ nekk comme ci lañ nekk loo tuddul dialogue mhm. seen volonté lañ am indi seen i nit ñu koy avaliser ñu créer condition yu ñu leen ko avaliser xëy na état lañ mën nañ ko ñun jaloog bi ñuy def dañoo bëgg buñ ci jógee parce que suba la ñuy restituer conclusion yi dañoo bëgg buñ ci jógee bu nguur gi changé suba ñu teg jéego yoo xam ne dina mën a changé lu am lu changé Sénégal parce que Sénégal ñun liñ dégg ci li xale yi wax mag ñi di ko wax mooy dëkk bi ni muy doxee bëggatuñ mu doxe nii. kon dina wuuteeg ba Amadou Mahtar Mbow jiite woon. dinañ boobu sax danañ ci jël danañ ci tànk mën nañoo tànk ci magistrat yi conclusion yi ñu amoon ci seen collègue colloque bi tànk ci CNR yi tànk ci assise nationale. boole koog li ñu jëlee ci peuple bi tëgg loo xam ne parce que tey xalaat ñàkkul Sénégal loolu yëpp du fi problème xam nga problème bi lan la problème bi ñu am mooy ku ñëw suba jël pouvoir nan la ñuy def ba engagement yi ngay jël avant boo ñëwee nga appliqué ko loolu lañ soxla. foofu la problème bi di nekk aussi. gisoon nañ fi assises yi lépp baaxoon euh, c'était bien apprécié mais jëfewuñu ko est-ce que tey lan ngeen di def comme loo xam ne da ngeen koy contraindre nit ñi bokk ci F24 pour bu ñëwee au pouvoir même bu dee day dal ci seen kaw sax ñu di ko appliqué. ñu ngi ut stratégie yi. parce que ut solution moo ñu fi tax a taaj. li ñu daloon ci président Wade dal ñu ci Macky Sall jàngee nañ ci lu bëri na ñëpp ñaan ñu am solution ci biir ba bu nguur gi changé. Mhm. ñu mën a teg Sénégal boo xam ne Sénégal égalité lay nekk. Sénégal boo xam ne citoyens yi ku nekk da nga ciy gis sa bopp ñu mën a am équité sociale am justice sociale am justice boo xam ne aussi. perception bi ci sénégalais yi am parce que sénégalais yi koo ci jël fi mu ne nii laaj ko noo gisee justice bi perception bu négative presque lañ lay wax. te loolu li ko indi sax du décision yu bari. mais ay comportement maa tey la parce que c'est des comportements maa tey booy def loo xam ne le plus petit des sénégalais ki gën a tuuti boo ko laajee ne ko décision bi lan moo ko waral moom mu mën laa analyser wax la finalité biñ ci jublu ba tax ñu koy jël. Mm. mais kooku war nga mën a taxaw mais président déggu ko. ci logique boobu la continuer ci logique boobu la ñi ko ñi koy pousse pour troisième mandat nekk ñun logique boobu moom lañ fi bëgg a jëlee te mënuñ ko fee jëlee lu dul xalaat mm-hmm. lu dul trouver ay solution yoo xam ne dañuy wax voilà document ngi nii ay proposition ngi nii yoo xam ne prêt à être appliqué mm-hmm. li des nag on le verra waxtaan ak sénégalais yi pour ne leen ñun suñ xalaat lii la lii ak lii moom lañ juboo ak ñi nga xam buñ ñëwee mën koo appliqué mm-hmm. Issa mais mais mais dafa am loo xam ne aussi dañ ko gis F24 wax euh, à part dialogue même y a yoo xam ne dégg nañ ko fi xëy na loolu di nga ko leeral ci kan moo defoon demande de manifestation bi ñuy dégg parce que gis nañ ci seen communiqué aussi ngeen ñëwaat ci beneen bi mooy ngeen wax ci aljuma ji ëllëg juin nit ñi takk ay euh, maanaam ku nekk daal euh, takk li nga xam ne moo di ay morceau tissu blanc ruban wala ak écharpe wala sax musuwaar yu weex yoo xam ne dinañ ko takk fépp ci oto yi buntu kër yi lutteurs est-ce que euh, f quatre combat bi ñu doon xaar ci ñoom que ni bon day nekki benn plateforme boo xam ne opposition bi yëpp ci nekk buñ paree dinañ mën a xeex ak nguur wala jàmmaarloog moom ci yenn point yu ko jar nekkatul benn combat boo xam ne lañ doon gis moom la ñuy faral di gis mooy reculade. en en réalité du reculade il faut ma leeral d'abord que mm. F24 ñetti type de force ñoo ko constitué. effectivement am na ay forces politiques am na ay forces société civile mais am na aussi force citoyenne parce que F24 plateforme citoyenne la plateforme citoyenne ñëpp ñoo mën a ñëw adhéré ci am na ay personnalité indépendante yu bëri yu ci ñëw mën a joxe seen xalaat ainsi de suite alors boo amee plateforme boo xam près de deux cent structure ñoom ñoo ciy nekk yi société civile yi politique yi mouvement citoyen yi tel il va de soi que mënuñoo xëy ñu ne leen benn côté ngeen di xool donc décision yi ñuy jël dañ koy jël muy tegu ci ay débat mooy ça dañuy débat be trouver ne lii mooy solution bi nañ ko adopté mais ligne bi leer te ñëpp war ko retenir mooy F24 du plateforme xeexukaay ça veut bu fekkee nit ñi dañuy xaar F24 wàcc ci mbedd mi lakk pëne yi manifester kii du loolu ñun mën nañ régler problème yi te duñu tiirelu ci kaw xale yi duñ leen yóbbu au purgatoire ça ne signifie pas nag lu état bi ne aaye naa ko rek dañuy toog duñu def dara tekkiwul loolu de ah, parce que mais depuis le début euh, constate Senghane su état bi ne déet rek ngeen euh, delluwaat toogaat ci seen pro dem woote point de presse. non no en réalité benn manifestation lañ fi oote le douze mais def ko muy manifestation bu fi mës a am benn lañ fi oote ñu tere ko mooy le 12 bi passé. bu le 23 bi nee ngeen M23 ñoom ñoo ko woote woon. donc du le le pourtant clair na ci arrêté. bi bi bi bi préfet bi joxe. Mm. et curieusement presse bi yëpp vingt 24 la bi moom la ñu wax am na sax sa. Euh, confrères yu ma woo démb ma ne leen effectivement du ñun mais malgré ça loolu la ñu wax et nous on n'a pas compris mais M23 M23 laa wax bi fi woon moom moo dugal dugaloon demande ñun yëguñ ko woon sax bi arrêté bi génnee lañ ko yëg ñu ne ñu waa am na ñu déposé woon fële est-ce que yéen la est-ce que est-ce que du ñun c'est bien écrit M23 et c'est bien écrit trois noms yoo xam ñoo ko demandé woon ñooñ bokkuñ ci ñun c'est c'est c'est très clair donc fi ay manifestations et bari na leer na aussi leen nañ ko leeral pour prochainement mu dindi problème yooyu F24 du structure boo xam ne dafa am reconnaissance bi mën a demander manifestation F24 buy def manifestation structure yi ko composé yooyu benn ci yooyu moom mooy demander à organiser moom moom moo koy boot loolu dana tax suba ñu mën a ràññee ndax ñun lañ tere wala terewuñ ñeneen waaye nag manifestation droit la du ñun joxuñ ko suñ bopp constitution bi moo ñu ko jox préfet na wàññi tere yi parce que manifestation yi ñu fiy tere mosuñ fee <coughs> ñoom ñoo fi andi problème yi ñu fi nangu d'accord ko amul benn bu ci am problème. d'accord baromètre bu baax la pour ñu wax ne sénégalais yi même jeunes yi ñuy wax ay niti yi lañ nit yi jàmm lañ. donc voie boobu voie texte yi nañ koy topp. dinañ ko euh, mais Pape bu fekkee ne F24 nee na du kuréel goo xamante ne dañu jug pour xeex mais li ñu demee ko ci réew mi moo di euh, soo jaaree ci yoon ñu salfaañe ñi war a teg ci yoon ñoom salfaañe duñ la may sa àq ak sa yelleef. Mm-hmm. gisoon nañ fi M23 également bi ñu demee ba ci biir dafa nasax tey F24 taxawaat porté waat le même combat ji fi mu terminer man foofu lay kii mooy c'est l'interdiction des de des manifestations. érigée en règle maintenant. non c'est la règle d'ailleurs am c'est la règle c'est c'est grave. et puis li ci gën a metti man foofu foofu laay laay laay laay attirer seen attention laay attirer attention administration mooy que duñ la permettre sax euh, duñ la notifier à temps pour permettre la boo bëggee def recours nga def recours dañuy toog ba heure bu la neex. ne la kaay à deux heures ou trois heures de temps ou bien jaarale ko par la presse ñu xamal leen ne que manifestation bi da am loolu muy benn mais en tout cas une chose est sûre mooy que à la naissance du M24 dafa am benn principe bu ñu jàppoon dañ jàppoon ni tey jii li nga xam ne M23 jotoon na ko fi def euh, entre deux mille euh, euh, vingt deux mille onze deux mille douze ba ñu am une seconde alternance ñun bi bi euh, F24 di taxaw da jàppoon bu ñu gisee dayo gi mooy le nombre de structures yi nga xam ne ñoo ko composé woon ak les personnalités yi ki jàppoon nañ ne que tey F24 day nekk benn force bi nga xam ne effectivement pour lutter euh, parce que tey je crois que loolu la Sénégalais di xaar loolu la Sénégalais di séntu euh, fàttaliku nga léegi nii ni que dañ nekk ci réew mi nga xam ne pratiquement on dirait que tous les droits sont suspendus euh, alors que askan bi mënuñu génn di waxal seen bopp c'est à travers de surtout à travers des plateformes ou bien à travers des partis d'opposition nañuy gisee ku leen di xeexal mm. bon yéen boo leen ne yéen tey doo leen xeex euh, F24 du xeex donc il y a un premier problème qui sa pose c'est-à-dire mooy que tey jii sénégalais yi bu ñu bëggee jooy maanaam bu ñu bëggee jooy wala bu ñu bëggee ku leen dimbale ñu jooy ku leen jàppale ñu jooy et ku leen di taxaw ah yéen déjà vous dites que yéen vous n'êtes pas dans cette logique là. est-ce bi lay wax bataille de rue bi nit ñi li gis des fois. bon voilà, je sais pas si après, il, va, préciser après. ok comme par la diplomatie lañ ko bëgg a mais est-ce que loolu tey mooy fay ci réew mi bu fekkee ne vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas diplomates. waaw est-ce que ce sera chose aisée d'obtenir li ngeen bëgg ci seen ay revendications. Bon, on on on on on ne fait pas l'apologie de la violence. et tout mais quand même. Euh, dafa am la nga xam ne ñu ngi koy gis yow yaa ngi koy wax nii euh, mooy justement euh, ces ces interdictions à outrance tey duñ la permettre la nga xam ne c'est le plus légal du monde permettre la nga dem saisir un juge de référé ne ko non man préfet daf ma aaye lii li yëg li yëg li pour ñu xool ndax mun nga loolu yëpp amul tey mais finalement kon jaratul kenn kaas parce que kaas bi ci boppam moo dul am finalité waaw kaas bi ci boppam moo doon am finalité léegi ma man li may li may préconiser dama ne tey même bu dee f du xeex ce qui est tout à fait noble également faut le reconnaître mais faut également poser des jalons yi nga xam ne pour en face les gens tamit soient respectueux euh, des populations soit respectueux des organisations parce que tamit c'est un jeu euh, la démocratie c'est un jeu ku ci nekk dafa am pàcc bi nga xam ne da nga ko ci war a def mm-hmm. bu dee yéen mais ñoom it de l'autre côté war nañu pexe surtout l'administration bi nga xam ne moom tëddaayam dafa war a nekk tëddaay njaaxaanaay war nañu en n'importe quel moment jouer le jeu même bu dee politiquement euh, le pouvoir moom mu ngi def mu ngi def euh, tout pour que ngeen bañ exprimer wu mais que l'administration vous facilite en tant que citoyen sénégalais. mais loolu nag bu amul faut que ngeen ut des voies et moyens yi nga xam ne pour les contraindre à respecter les choix les les attentes des populations. d'accord Senghane. alors xam nga plusieurs interrogations xam nga bu ma waxee F24 du pour xeex ça dire que ceux qui attendent que F24 moom mooy commandité kaas yeeg toj yeeg lakk yi ñooñ la ñuy waxal c'est juste ça maintenant ñun defe nañ aussi ne am nañ en face ay autorités yu responsable yu am intelligence parce que gis nañ ñi constituer F24 ay nit ñu responsable ñoo fa mhm. nekk ay kilifa ñoo fa nekk bu ñun ñëpp ñu tënkoo ci loi yi jàmm dana am ñu régler problème yi ñu war a régler wax nga ko autorité administrative yi nekkuñu fi pour soutenir un régime dans le principe dañ fi nekk pour liggéeyal état bi dans le principe waaw dafay def lu tax mooy wax dans le principe mooy dafay def nag défaut li nga wax dama koy dëggal mhm. alors ñun bi ñu déposé ne dañuy manifester le 9 et le 10 préfet dafa génn ci benn rajo de la place mu ne aaye naa ñaari manifestation yëpp mu notifier ñu interdiction le 9 ñun gisuñ interdiction le 10 on était obligé ñu ne on maintient pour le 10 bi ñu déggee nag ñu ne on maintient gisuñ communiqué ñu ne on maintient ci la police jëppal door a woote ne ñëw leen jël arrêté bi parce que arrêté bi mu ngi fi donc ñun jour bi ñu doon réunion pour statuer effectivement ci manifestation bi lan lañ ciy mujj def booba lañ woote ñu ni ki defoon déclaration bi mu dem jëli arrêté bi ñëw andi ko xam nga loolu du administration boo xam ne dafay dox normalement dans sa communication il répète les mêmes éléments yi euh, waa nguur gi di répété F24 ay opposants lañ Macky ne mooy ñooñu di nekk anti troisième mandat moom noonu la wuy <laughs> dialogue bi bi ñuy laajte daf ne mooy ñooñu rek ñooñu di xeex anti troisième mandat préfet autorité bu renseigné la du ma wax bu informé il est très renseigné mm. donc moom xam na F24 kan ak kan ñoo fa nekk mm. xam na ne F24 du ay force politique kese kon moom warul bokk ci ñi ñuy stigmatiser maintenant bu ñu amee intelligence ñun ñëpp dinañ liggéey ñun ñu jël suñ droit ñoom ñu jël seen liggéey def seen liggéey autorité ñu bokk jëm vers un Sénégal bi ñu bëgg mm. buñ ko deful mooy ñu continuer di interdire F24 c'est une gigantesque plateforme F24 moo ëpp doole M23 mm. dama leen koy wax et mooy ambition bi ñu tegoon bañ koy tabax gis nga f bés bu dooleem jógee dooleem ci région yi jóg ñoom mën nañ ko bañ a mën a contenir mm, d'accord aha ah, kon ñun jàmm lañ woote jàmm la ñuy dox yal na en face ñu dégg jàmm boobu ñu wuyu ñi ci jàmm boobu mais ñu ngi wax population yi ne nañu rejoindre F24 en masse. ku ci am doléance yaakaar loo mën a régler lu ñu war a mën a regle ñëwal parce que à tous les niveaux am nañ ñu ko mën a. d'accord Issa li ñuy ci waxtu bi euh, ndax droit de l'hommiste nga nekk rado euh, bokk ci société civile yaa ngi koy wax F24 mais bu ñu tegee loolu yëpp jël côté droit de l'hommiste bi euh, Sénégal ñu doon fi dégg ay manifestations yoo xam ne am nay doom aadama yu ci ñàkk seen bakkan toll ci fukki doomu aadama ak juróom-benn ci yu mujj yi <laughs> ko boolee yi fi njëkkoon a faatu na Euh, ñu gis avocat bi la di maître Juan Branco mu dem daal di euh, porter ji plainte euh, nguuru Sénégal ca France mais aussi saisir ñi nga xam ne ñoo di waa Cour pénale internationale ban signification lay am d'abord ci justice bu Sénégal bu ñu demee ba dossier yi géré wuñu ko fii ñu dem même au niveau de la France ak yooyu noonu ñuy jàppandu si Juan Branco peut-être pour am gain cause image bu bu dégradante la pour Sénégal dama lay jox raison yi gis nga réew yi ñu wër yëpp ñun dañ bokk ak ñoom ay kuréel au niveau africain yoo xam ne réew moo ci gis am na coalition pour la CPI. Hmm. Sénégal amu ko wax nañ ñu besoon na créer leen ko ñun mille militant droit de l'homme yi fulaaluñ ko parce que dañ jàppoon ne jaru ko ñoom ñëpp ñoo bokk def ay communiqué bi li fi xew amee ne procureur yi CPI bi ñu ngi lay ñaan nga surveiller la situation du Sénégal loolu signal bu fort la. j'ai vu le de la Gambie. suñ mbokki africain yi. wooñu def ak ñun ay webinaire ba Union africaine sax di xelaat ñëw fii ne ñu vraiment bor bi ngeen ñu doon lebal bu ñu amoon ay trouble ñun pare nañ pour ñëw fay leen ko loolu ñun ñaanuñu woon fooguñu woon ne Sénégal mën na fa yegg léegi nag pour ñëw ci question CPI bi mhm. techniquement <coughs> dossier Sénégal bi techniquement laa wax de yeggagul fu ñu ko mën a yóbboo CPI techniquement ça veut dire que. kon lii agitation yeeg publication vidéo yi ñu gis tey document boo xam ne. Euh, document bu bari la quand même ficelé techniquement warul àgg CPI. c'est-à-dire que CPI juridiction complémentaire la. mooy juridiction boo xam ne bu fekkee justice yi dëkk bi yëf yi xewee doxut ñoom mën nañoo intervenir pour juger même cas yi dëkk walla dëkk ba def une mauvaise volonté bañ a juger. mais loolu dafay am un long temps bu passé. ñu apprécier ko xool ne ñii daal buñ jéemul dara amuñ volonté def dara ci dossier bi et même dans ces cas ñoom buñ bëggee dugg état bi ne leen mën naa juger dañ koy wax jugeel nu on surveille. mais mais Senghane doguma la deux 2020 vingt 2021 li fi njëkk am ces morts là boobu ba léegi ñu ciy topp pour ñu àtte ko donc mauvaise volonté de ne pas euh, juger ce dossier là mi ngi fi woon kon mun na doon benn ci point yi tax ñu jël dossier yi yóbbu ko. voilà maintenant pour ñu ko. maintenant mën na doon début de procédure. c'est vrai que même deux ans du temps bu long trop. mais mën na nekk début de procédure. ça veut dire li Juan Branco def noonu bu ko kenn xeeb. bu ko kenn xeeb mooy dossier yi muy dajale noonu déglu naa ko tey bu baax nee na. yëf yi du terme de semaine ou de mois en terme d'année la nit ñi préparé yoo xam ne lu yàgg la. bi ma déggee loolu laa xam ne moom comprendre na bu baax kon justice pénale internationale li muy dox. mais Sidiki Kaba jàpp na que ni c'est pour démoraliser juste les forces de l'ordre mais du luy aboutir parce que ñi ñiy wax nii ne dañuy saisir CPI mënuñu maanaam habilité wuñu pour saisir ko. bon xam nga dama la wax leen ci justice pénale internationale man mën naa ko wax parce man dama liggéey bu baax ci procès Habré mhm. am ci yeneen yu ma liggéey yu ma xam gis nga justice pénale internationale dafa politique et souvent contexte dafay déterminer li koy doxal Sidiki kabaa xamul dans dix ans quinze ans ban contexte mooy am ba tax dossier Sénégal ñu war ko mën a réveiller mhm. il est important ñu wax autorités yi fi nekk di recruter nervi nervi yi ñuy recruter ñu wax leen ne la Juan li muy dajale noonu fii ba 15 ans mën nañoo utiliser dossier boobu pour renforcer ay faits yoo xam ne dafa xew Sénégal ñu war ko àtte gis nga dossier Habré juge Franzen mooy juge d'instruction bi ubbi woon procédure yi Belgique. 2005 mhm. la ko ubbi woon. 2015 ñëw na fii ak dossier ñu versé ko ci dossier Hissène Habré bi mu ñëw témoigner fi wax lim xam yépp ci dossier bi donc bu ko kenn néewal doole. mbaa nga xeeb ko c'est important lu mën a servir plus la te nag nañ xam aussi ne aujourd'hui lépp looy def peut-être am na ku taxaw fenn di la filmer di la jël donc réunir pour preuve yi du doon lu jafe nañu dellu si à la sérénité Sénégal gii ñun ñoo ko bokk. mais nañ ko jàppe nii que ni mm, peut-être dina régler lépp kon mën nañoo xaar quand même. wuy oui danañ ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp dañ koy topp di ko suivre di xool dossier bi mm, il faut que ñu xaar. oui oui danañ xaar parce que xam naa ne ñi yàkkamti danañ xaddi dégg naa sax ci mbedd meeg yooyu ñu naan wuy léegi dossier bi Nations Unies moo koy jël en charge yi moo koy jël en charge c'est pas du tic au tac lay demee noonu bugguma ci woon sax wax j'évite damay éviter wax ci parce que dans certains de nos cadres yenn yi boo ko ci waxee ñenn ñi di parce que ñi koy wax daf ci am ñoo xam ne dañuy def politique ñi koy wax daf ci am ñoo xam dañuy bëgg a avertir pouvoir bi et tout ça c'est peut-être important pour eux mais man bu ñu ma laajee avis technique mhm. danaa joxe avis technique ne ah techniquement yëf yi nii la war a demee mais bu ko kenn ñàkkal fu la parce que mën naa servir à l'avenir la meilleure solution mooy ñu arrêter violence yi d'accord Pape rapidement en 30 secondes. non non non moi je dis effectivement li mu wax c'est vrai mais c'est-à-dire dafa am ñaari mbir benn mbir bi mooy que dañu njëkk saisir. la justice française la justice française à travers la chambre bi nga xam ne moo spécialisé wu sur les crimes contre l'humanité mhm. te ñoom seen dernier arrêt cour de cassation genre meurtre ak attaque généralisée ñoom dañ ko duggal ci ci cursus ci euh, euh, ci ci ci corpus euh, judiciaire bu France donc c'est clair c'est net et précis léegi nag par rapport à la CPI ou à la justice internationale effectivement ça peut prendre du temps mais lii nga xam ne mooy am France wala ci beneen dëkk wala Belgique mooy ñu koy woowee compétence universelle <laughs> ça peut être déclenché dans les 48 heures ou bien dans dans moins d'un mois d'accord merci oui, c'est important sax loolu moo préciser ko uh-huh. parce que même les autorités yi nekk fii di wax la convention sur la torture kese mhm. bu ñu la ci porter plainte ci un nationale koo xam parce que il faut ñu rappeler dans la laaj na également ñu déclaré wu oui parce que très bien donc il a il a bien compris li taxoon française mën ci dugg dafa am quatre tchadiens yu amoon nationalité belge mhm. donc dañ nekkoon tchadien am nationalité belge te ñu ne dañ leen torturer dans faire Habré compétence universelle bi Belgique amoon boobu mm. moom moo permettroon Belgique mu mën a dugg donc autorité yi ne fii di def yenn yi buñ leen porter plainte ci réew yooyu ñu bañ a activer fii nii justice bi